coowul pétrole ak gaz bu Sénégal bi nga xam ne ñoo ngi si tudd Macky Sall Aliou sal ak Frank Timis ci lu jëm ci ay njuuj njaac ak i njaaxum ak i grawale ki looxóor ba léegi ni coow li maa ngi wëy yéen kaay gii di réew mi ko dëjee ak enquête ak Walfadjri mu ñu xamal lan ñu samedi ji nga xam ne moom la ñu génn kuréel gii di aar li ñu bokk ñoom doon nañu amal ay manifestation yéen a kaay groupe promo consulting gi mu ñu xamal lan ñu kuréel gii di aar li ñu bokk seen manifestation ba nag maanaam bëriwutoon ay nit ñoom waa ñu bokk ñoom ñu porte plainte préfet bu ndakaaru ndax ñoom dañoo gis ne mooy saboote li nga xamante ni mooy seen i manifestation te day salfaañe seen àq ak seen yelleefa ba tey ci biir journal bi mu ñu xamalaan ñu kuréel gii di aar li ñu bokk ñoom nag li ñu bëgg mooy contrat yi nga xam ne jot nañ koo signé ci pétrole ak gaz bu Sénégal te ñoom ñu jàpp ne am na ay njaaxum yoo xamante ni am na sa maanaam ñu daal di koy xoolaat yéeni kaay gi ñu fekk fa Ousmane Sonko moom nag la mu xamle nee na Macky Sall moom du nag contrat yi jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal rek la salfaañe nag am na yeneen contrat yoo xamante ni Macky Sall jël na ko jox ko waa Turquie lu ci mel ni fer de Falémé te loolee ay njombe ki grawale ki yu rëy moo ca am yéen gi ñu fekk fa doomu Zambol Dias bi di Barthélémy Dias moom nag la mu xamle nee na su ngeen déggee Macky ak Aly Ngouille Ndiaye di wax ci lu jëm ci mbirum élection ak caution bi loolee dafa bëgg a tuur lëndëm askanu Sénégal rek bëgg nekk di wax ci mbiri élection locale ni mooy pétrole ak gaz bu Sénégal dañuy wéy di ca daa a en tout cas li am ba des mbirum pétrole ak gaz bu Sénégal coow li ba mu commencé ba léegi nii gis nañ si nag ay wax yu juyaloo yu bare bare yoo xam ne am na sa njobbaxtalu état ga ndax nag moom Macky Sall ci juin atum 2018 la mu waxoon mooy nag jot nañu daal di xoolaat contrat yi nga xamante ni jot nañu ko signé ci ressources naturelles yi ki nga xam ne mooy Mamadou Kane Fall mi nekk secrétaire permanent adjoint bu COS-Petrogaz moom nag la mu xamle nee na contrat yi amul koo xamante ni mën na koo négocier waat yéen kaay gi mu ñu moom nag bi coow li doog di commencé la mu xamle woon nee na nag mbir mi affaire privé la ca ginnaaw ga ci la ubbi ab enquête ci wàllu woowu yéen kaay gi mu yokk sa Aliou Sall mi nga xamante ni moom ak El Hadji Kassé seeni wax tamit dafay juyoloo yéen kaay gi du source mu ñu xamal lañu en tout cas li am ba des daal si njobbaxtalu état bi ci lu jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal seeni wax dafay faral di waral lu bare bare Moustapha Diakhaté bi jiite woon groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nekkoon fi tamit chef de cabinet Macky Sall moom nag jamono ji mbaadu Macky Sall wala Aliou Sall kenn si ñoom da koo tooñ nañu en tout cas loola yéen kaay gi ñu fekk ko fa moom saa Touba la mu xamle nag nee na Macky Sall ci boppam dafa def ay njombe ki grawal yi ay erreur yu mag la Macky Sall def jël sunu pétrole beeg sunu gaz bi contrat yi di ko jox ki nga xamante ni mooy Franck Timis Abdoul mbay ak Mamadou Lamine Diallo ñoom ñi nga xamante ni suba ngoon guddeeg bëccëg ñoo ngi wax ci pétrole ak gaz bu Sénégal samedi ji nga xam ne moom la ñu génn ñaar ñi nag demuñ woon ci li nga xamante ni mooy manifestation yi aar la ñu bokk doon amal Mbaye Ndiaye na kuréel gi nga xamante ni mooy aar ñu bokk dañuy caaxaan rek te nag manifestation yi nga xamante ni ñoo ngi koy sàkku dañu leen ko war di tere Aliou Tine moom nag la mu xamle nee na mbir mi ci boppam dafa war a leer te nag mbir mi li naqari ñëpp jaaxal ñëpp mooy Aliou Sall mi nga xam ne mooy ndeyu mbili gi lan moo tax ba léegi nii kenn convoqué wu ko moom Aliou Tine ci yéen a kaay si du Sud Quotidien la xam ne nag nee na communication bi nga xamante ni moo am ci pale bi nag maanaam bëri na ay wax yoo xamante ni ñoo ngi koy wax te dara du ca dëgg moom Aliou xam ne nag mooy mbir mi Sénégal yépp li ñuy sàkk mooy mu leer te fa war a leer Les Échos yéenekaay mu ñu xam naan ñu jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk APR dëkk Pikine ñoom dañu doon amal am daje waaye nag ci ay giraawaale kii njombe yu rëy ca la mujj jeexee sànnantey xeer ya sees ya di naaw deret ya di walwal di tuur daggantey saaga ya journal bi mu ñu xam nañu en tout daal jox xar bi nañ baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy Awa Niang yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ak Sud Quotidien ak L'Observateur ñu fekk fa Eliman Kane mi nga xam ne cadre la woon ci ONG programme te nag ñu daal di ko fay dàq moom la xam xamle nag nee na kilifa yi daal dañ leen a sant ngir nag ñu daal di dooleel ñi nga xamante ni ñooy góor jigéen yi loolee nag la lànk ba tëdd sat naaj wa moo tax ñu daal di koy dàq journal bi du l'Observateur dikk ci lettre bi nga xam ne maanaam moom Eliman Kan daan na koy wax ne seeni kilifa ñoo leen ko yónne woon ci ab mail lettre boobee ñoo ngi ko titré lettre d'amour source a moom bàyyi mbir yooyu nag dikk ci giraawaale kuk njombe kuk musiba maba kumba gu rëy goo xamante ni daan nay xew fi nga xam ne mooy Touba quartier ga milliard bu ndaw yéenekaay gi di source a ci xalimak Mor Mbaye Cissé nee na benn jàngalekatu alxuraan maanaam benn ustaas mooy yegg si ñaari xale yu jigéen yoo xamante ni seeni at weesuwul fukki at ak ñett ci Touba mbir mi nag maanaam soo moytuwulee dina jur coow lu rëy rëy rëy yéenekaay gi nee na en tout cas benn xale bu jigéen bi la mu le nee na ustaas bi daf ko woo ca néeg ba simmi ko nag ba pare di fo ak moom maanaam di ko làmbatu beneen xale bi nag la mu xamle nee na ustaas bi yàgg naa ànd ak moom Ba mu ñu xamal lan ñu oustaz boobu nga xamante ni moom la ñuy tuumaal ne moo def googu lee ñaawte fa daan nañu koy defeere àllarba ji nga xam ne moom la ñuy génn sa mujjantal ga sax daan nañu koy nag def ab sous mandat de dépôt ci Jurbel la yéen kaay gi dikk nag ci wàllum tàggat yaram ñi nga xam ne ñooy waa Égypte jamono ji nag àdduna bi moom màbb si seen kaw ki nga xamante ni nag moo jiite woon fédération ba dafa tekk ndombal tànkam ba pare nag dàq staff ba yépp ki nga xam ne mooy Mohamed Salah moom nag jamono ji mën nañoo wax ne ballon d'or bi daan na koy romb journal bi nee na Sadio Mané bu góorgóorloo tuuti rek daa di siy jot les échos ñu fekk fa Mbaye Diagne moom nag mu daa naagu nee na Sénégal jamono ji nag ban équipe lañu war a dajal final moom la ñuy xalaat ci loolu la ñu nekk